maaleykum wa rahmatullah mbokku internet yi seen football TV nuyu naa leen bu baax a baax ziar leen te ne damay ñëw wax si match Sénégal contre Eswatini ma gis ne nekk na match bu xamante ne daf ñu nar a nax match bu xamante ne trompe comme tubaab ni mu koy waxee maanaam mën nga gis benn 5-0 nga yaakaar ne booy si benn niveau moo tax ma koy wax dama gis ne Aliou Cissé si deux matchs yi dama gis ne contre Congo dafa waroon a teg équipe bu xamante ne Sadio Mané du nekk équipe B dëgg la waroon a teg pour juger joueurs yi lan mooy seen réelle valeur lan mooy seen vraiment lan mooy seen valeur quoi franchement valeur lan mooy seen valeur mooy que tey jii benn euh, Alassane Ndao mën nañu daje contre Eswatini wala benn Mamadou Fall mu def benn triplé nga ne waaw Alassane Ndao mi aay na de kii dañu ko war a équipe nationale du Sénégal tout temps. alors que franchement le niveau de l'adversaire faut le dire quand même xam donc euh Eswatini un point là am c'est faible quand même suñu football local bi sax war nañu mën ñëw japp ak Eswatini dóor donc man ma gis ben Mamadou Fall triplé wala ma gis c'est pas moi ben Sima triplé dina wax waaw c'est bon mais xam nga du valeur du ko war a jox dëgg du ko war du ko jox valeur bo parce que ma gis né match bi gënoon a ci ñaari match yi c'est contre Congo moo contre Congo équipe B la waroon te bu ko défé boy ku fa def woné bopam wala ku def preuve bi nga wax né boy bi mën nañ ko bayyi xel comme part mota sa comme nampis mendi tu te dis que équipe adverse bi non seulement dafa soxlé won victoire dafa dafa beul qualifier ci si deukam lé si naaj bu tang donc mënu mas bi mënul yëm donc mas bobu non ku fa nee euh, na ku fa def performance rek sa performance mën nañu ko jox valeur alors que contre Eswatini Aliou Cissé tey jii bu ñëwee contre mu teg équipe B benn kii def nga def benn xel bu neex parce que mooy euh, mooy Brahim Soumaré boobu lu muy mu nee na moom bu dafa neex xam nga da ngay xam da ngay joué nga xam ne ñii mu gis xam mooy mooy Deschamps li xam que lañ boo nekkee Ligue des champions nga Ligue des champions boo fa deful dara. du la jox du la jox sa cër ne Boubacar Camara normalement ñu France ñu bëri dañoo wax xawoon ne day dem fële euh, équipe de France A xam lan moo tax dem fa descend dafa gis ne Ligue des champions niveau bu mu doon xaat ci moom wane ko donc Aliou Cissé

mais tey jii boo ñëwee contre Eswatini nga tegal ñu équipe B booy yi gis léegi nga gis benn Fodé Malal Touré accéléré dribble def lu ko neex ma gis benn Mamadou Fall def triplé ma gis c'est pas moi benn Alassane def benn passe bu extraordinaire du ma ne du dina du garaaw ci man parce que man noonu lay xoolee quoi damay xool tamit. équipe adverse bi tamit équipe adverse bi c'est très important moo tax ma gis ne match bi dafa nekk dafa nar a nekk benn match bu xamante ne trop match ne ne moo daax fu ba ñu bu xamante ne moo ngi championnat euh, ma gis ne c'est un boo xamante ne match trop la nar a doon donc ci commentaire ñu ngi leen ko andilee tëddee nii ndax ñoo bokk avis bu fekkee tamit bokkuñu avis en commentaire wax leen ma seen xalaat ak lan moo tax ngeen wax loolu bu fekkee na ngeen ànd ak man avis argumenté leen damay neex à fois ma koy lire euh, di leen tontu donc maa ngi leen di jaajëfal di leen wax ba beneen sur Senfootball TV bye bye.